tey nag moom dañu nekk fii nii loo la jeunesse benn bees boo xamante dañ koy samp fii ci digg dëkk bi ci Kébémer muy Kajoor léegi nag bi nga xam ne tey moom lañ commencé di teg nii waa gis nga ak ni mu ko mujjee ñëw ko arrêté nag peut être bu ay plusieurs raisons ak seen ay raisons la jeunesse ñoom ñëpp ñu mu toll nii mu nekk loo xam ne franchement parle que ñun am am la jeunesse bu mu lépp li nga xam ne tey jeunes yi dañ koy fii ci dëkk bi nii maanaam du yii ñii moom moom moo koy jeexal wala moom moo koy arrêté ñu jégalu waat. demal iya, dañuy ini ni tay dañu ñëw fii di participer si konser benn concert boo xam ne dañu fi invité mais tamit KMR tamit bi ñuy wax ni KMR ñun ñoo ko di participer ak di jàpp ci li nga xamante jeune KMR moo na ñu bëggoon nag benn message boo xam ne koy ñaan bu fekkee ne ñaan lan ko mën wax ñu xam ne ñoon tamit amul lu jeunesse KMR franchement parler ñu sañoon lépp loo xamante ne dañ koy bëgg dañu ci fekk parce que boo wëree Sénégal 45 département yi nekk ci ci KMR yëpp ku ci nekk yaa ngi nekk ci li nga xamante moom nga bëgg mooy jàppale la jeunesse. et puis ñun boo xoolee amuñu nawetaan amuñu dara li am mooy ay concert ak yooyu maye yi san di lancer benn message rek pour wax ni ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité KMR ñu jéem a xool ci lii nii jéem a xool nan yan sorte la ñuy def ba nga xam ne KMR jeunesse bi ñu teg yenn affaire yu mel nii ñu ñëw di ko arrêté. bi ñu koy arrêté foo xam ne tey boo xoolee jeunes yi tey jii ni mu taxawee sa xol sax day daal di jeex quoi. loolu daal message la xam ne tey ñu ngi koy lancé le préfet neex quoi trop parce lii neexul ci ay jeunes yoo xam ne tey dañ jël xaalis bu bari ñu def ko ci seen concert bëggoon a def dara mais tey gis ngeen ñun ñëpp ñoo ko gisandoo concert bi dafa mujjee arrêté parce que police moom moo ko arrêté merci beaucoup Mara.